c'est-à-dire préjudice bi kenn mënu koo kenn mënu ko natt parce que tey jii lii lii dafa waroon ànd ak préjudice dañ leen waroon fay au delà de li ñu leen yoreel dañ leen waroon fay lu bare bare bien sûr indemnité waaw parce que yaa ngi wax ne mat na vingt ans yow mhm. depuis vingt ans ñu ne la fayal kii nga topp vingt ans mhm. vingt ans c'est une vie donc dafa nekk lu méttee méttee métti loo xam ne man moom xam naa xam naa am na lu ma ci xam. Mhm. même même tout récemment un de leurs responsables Grand Ngom ma koy nuyu au passage mhm. je l'ai suivi à la RFM moo mhm. nekkoon keroog. Euh, seen invité bi Moustapha am Amdi Ngom. Amdi Moustapha Ngom on habite ensemble il est de Pikine aussi. donc daf ci am ñoo xam ne man dama leen xam donc lii dafa dafa lii daal na na na nekk. vraiment un cas d'école. désormais bu fekkee ni dafa am ay sociétés yoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe ba yëf yi dem ci yoon ba yoon wax. Mhm. non état bi nag dafa war a sax sursoir yenn yi. pour ñooñu mu jox leen seen ak ak seen yelleef. Mhm. ñu xam ne société bi jeex na abaana c'est fini lañ leen di fay nag. Mhm. ñoom ñu jëm ci reconstruire une nouvelle vie. c'est mais munoo nekk ci benn liggéey ñu tas entreprise bi war la fay nga defaruwaat. ñu ñu lay dawloo vingt ans. loolu te nag te nag problème bi mooy bu ñu tasee entreprise boobu dañuy créé waat beneen mm-hmm. entreprise. ci kaw entreprise mais c'est ça ba pare jël ñeneen jël seeni mbokk ñeneen ñu bees ak ñu bokk ci ñoom bàyyi ñi nga xam ne ñoo d'ailleurs loolu moo indi problème bi. Mm-hmm. parce que aussi bu fekkee ni ay nit dañoo nekk ci benn entreprise. am ci nangamu at. Mm-hmm. am ci expérience xam liggéey bi yow nga dem. fexe ba créer beneen entreprise buy def à peu la même chose écarter ñenn ñi dem jël ñu bees ñoo xam ne tegoo ko ci benn critère mais entreprise boobu mooy li ngay wax pour mu décoller le minimum jëlaat leen ñu continuer liggéey pour mu décoller day nekk ngeen topp ko day nekk problème ah. donc donc vraiment loolu moom dañ ko war a def règle moo daal SDE ak CNO presque ñi nekk CNO ñoo nekkoon SDE mi ngi noonu pourquoi on ne peut pas procéder de la sorte mi ngi noonu ah. donc yooyu dafa nekk yoo xam ne vraiment yu ñu war a éviter la en mm-hmm. tout cas dans dans notre gouvernance leneen li aussi mooy société yi nga xam ne aussi dañ koy créer ñi koy gérer nañ mm. xam ne. Mm. buñ ko fowee quoi Simon. parce que munoo nekk ci benn société boo xam ne il y a un grand nombre de travailleurs. Mm-hmm. yoo xam ne ci lañ yaakaar di ci gagner seen àdduna. dépendre ci sa signature. waaw nga dem fowee société bi ba mu daanu. Mm. tey ji poste poste bu redressé wul ñi mais ñi nekkoon post yëpp nan la ñuy def. <laughs> <laughs> te souvent ku ku ñëw da ngay def yoo xam ne yow leer na la li ngay def nii baaxul ci société bi baaxul mais dañ koy def mais da nga koy def donc même foofu sax il faudrait que ñu yegg ci di encadrer aussi même les mm-hmm. su ñu bëggee jël yenn yenn yenn décision yoo xam ne ça peut mettre en péril mhm. euh, les les entreprises mais ñu am ñu leen di mu am garde-fou mu am accompagnement parce que tamit sinon tu tu tu le sort de milliers de Sénégalais entre mhm. des fois des mains je veux pas dire inexpertes mais <laughs> yoo xam ne après nga dem tëdd <laughs> après nga dem tëdd yow kii après fekk lor nga yow am na cinq cent personnes yoo xam ne mhm. ay yoroon nañu kër yor ay yaay yor ay soxna yor ay doom yu ñu war a kii après donc c' est très très dur affaire Sotrac bi. ak yeneen entreprise non dafa métti dafa métti trop léegi nag wa wax nañ ko assemblée wax nga ko ñëpp ko voté. Mhm. ngalawaay li ñuy njëkk a génne nañ ko génne. damp leen tout en sachant que. Mhm. dàmp bi sax dàmp bi yéex na mais. Mhm. mieux vaut tard jamais. yéex na yéex na. bon <laughs> fi ñu leen seen ñaq la. seen ñaq la. dañ koo liggéey. ab boo koy liggéeylu soo demee ba rupture de contrat am sa diggante ak moom. Mhm. buy bay boo koy dàq da koy fay indemnité. Mhm. yow sa ngeen nga ne dàq ñu ko moo liggéey ba congé jeex ay indemnité di ko fekk si. waxtu ma laa ko xam ne ba mu neex nga ne bu fayit na. nga jëlee ko fa. société bu fayitee kañ xanaa kees dina benn wéccit bu fa des. xanaa. jël wéccit boobu joxe ko mu nekk seen indemnité ba ba ngay mhm. créé leneen. nga créé leneen fàttali leen ci touche ba. mais ñoom ñoo yey et puis quand on dit que l'état est une continuité ana continuité bi ñu wax ci état Sotrac ba Dakar dem dikk. Hmm. Sotrac ba Sénégal dem dikk. SIAS ba UCG. waaw. Hmm. boobu ba léegi ne di i droit même avant Sénégal pesait dans le nettoiement. di i droit di jooy seen i droit. ñu dem ba ne Dakar dem dikk dem na ba embauché plus de mille cinq cent et quelques agents. c'est dit dem ba naan Dakar dem dikk demoon na ba am ay plus de huit cent bus. Hmm, tey Dakar dem dikk amul quatre-vingts bus yu mot. ba DG bu bees bi di wax naan il lui faut benn 3 milliards pour mu defaraat 120 bus y a un problème à l'audit. Hmm. moom daal société bi day daanu noonu rek quoi xamuñu lan moo daaneel société bi quoi. <laughs> budget pan budget manqué xaalis ba sey na fii naaw na fii après ñu ñëwaat defaat relance toujours relance rek. Hmm. di jël xaalis société nationale warta daanu. Hmm. société bu état moom warul daanu. ci yoroon wi la rek. parce que tey bu dee état moom mooy subventionné société boobu alors askan wi lay jël di ko ko subventionné bu dee état dafay jël société bi def ko maanaam à quatre vingt dix neuf wala cent pour hmm. mais état du Sénégal levier yi muy utiliser di ko jox le privé pour liggéeyam di ñoŋ di woyof. Hmm. mais levier bu ko lay utiliser. pour société nationale bi mu moom. Hmm. gën a ñoŋ. mais malheureusement au Sénégal y a que les yi nga national yi nga xam ne état moo ko moom. Mhm. moom la ñuy détourné. raar na raar très rare nga dégg ne société privée détourné nañu fa xaalis ñoom daal national bi rek la ñuy yàpp. Mhm. te ñu koy def yëpp. parce que foofu dafa bëri laxisme. ñu ko waaye sàcc ganal laxisme. Mhm. sàcc la sàcc ko bari kese la tant que. am na am na ku ma envoyé. Sotiba aussi dañ ko dugal ci biir c'est pareil pour les ex-travailleurs parce a Sotiba la Sonadis société nationale de diffusion ñoo ñëpp ñu ngi ci situation boobu Sonadis bañ ko liggéeyee du du tey eh mais ba léegi ñoom ñu ngi jàmbat seen dossier bi càng na yow xanaa moo caisse de précaution sociale sax dañ ko ci waroon boole ak yeneen ak yeneen bi nekkoon Bel ak yeneen ak yeneen kooku moo doon tax tey jii prix yi ak njëg yi doon yomb mhm. mais tey on doit se poser la question Sénégal ni ñu yabee suñu société nationale yi di këpp kees après ku ci këpp kees DG ministre. Mhm. ngay dolli. balaa maa danañu naan non c'est que président bi da koy jël parce que li mu denc moo bari quoi a def pour utiliser xaalis bi nga xam ne moom la sàcc loolu fan la <laughs> Sénégal mooy dëkk boobu ne hors la mooy politisation bi ñuy def rek ci gestion sunuy ay société malheureusement assemblée nag seen session budgétaire bi nga xam ne moom lañ nekk di def. Mhm. ca lañ soulever loolu. député bi ànd ci parce que ay sénégalais lañ pouvoir opposition. Mhm. le ministre Amadou Mamadou Moustapha Ba wax na ne y' a. Euh, 13 du 13 le milliards 13 milliards. 13. y' a l' agent judiciaire de l' état. Mhm. mu ngi saytu dossier bi. nee na décaissé nañ bon pas décaissé euh, programme nañ 13 milliards boo xam ne. dañ koy génne jox leen comme seen indemnisation. en tout cas ci budget 2023 bi la kon ñu njortu ne. Ah, yëf yàggatul au moins du jéggi 2023. mais lu mu gaaw rek ñu jël. non le ministre a déjà ah. dit mm. selon ce qu'il nee na. euh, la question sera traitée par l'agent judiciaire de l'État a informé le ministre qui a ajouté qu'un budget de 13 milliards de francs CFA a été dégagé à cet effet. D'accord loolu laa wax ma ne la comme dañ ko prévoir ci budget wu 2023 njortu na ne yàggatul mais lu mu gaaw ñu xeeb. waaw moo tax ma ne la kañ ñu ci 2023 bi dañ koy jot. voilà voilà bu ñu demee ba ne impliqué agent judiciaire de l'État kañ mooy. Hmm. mu ngi xool nag lañ ko def ba séddale ko. waaw léegi agent boobu mu nelaw. nay jeex nag na lijjanti dossier bi. yow Simon parce que y' a urgence. Simon waaw y' nelaw. du agent de. waaw état bu bëggee lijjanti problème. Hmm. du ko mot 48 heures. waaw kon agent nañ ca dem. BRT bii. nañ ca dem nañ ca dem bi plus de 300 et quelques milliards. pour liggéey ko deful 6 mois. ñun 13 milliards yi nañ ca dem. non waaw xaaral ma ñëw. dama la jox exemple ne la état bu bëggee jël farata pour exécuter. du ko doon jafe-jafe. d' accord terre bi ba ñuy wax budget bi koy defar. budget ba amul jafe-jafe. et j'en passe stade Abdoulaye Wade bii président Abdoulaye Wade c' est plus de 150 milliards.